garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne naa mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp asalaam asalaamaaleykum mbokk auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam amaat nag mbégte bu baax a baax toog fii jagleel leen seen émission meilleure santé meilleure santé nag comme ni ngeen ko xamee rek ñu ci ànd ak pharmacie nationale d'approvisionnement tey nag ñu nekk ci mois d'octobre bu ne octobre rek xel yëpp day dem ci octobre rose ñu jagleel ko xeexum lépp luy cancer du sang tey nag ñuy dalal caane Ndiaye Thiané nag di professeur euh, philosophie foofule ca Gossas doon doonoon na itam ah, taskatu xabaar di yëngu ci wàllum presse écrite tey mbokk auditeurs yi moom la ñuy dalal ci année nag amoon na jàngoro ji di cancer du sein fi mu toll nii nag wër na pëng xeex nag moom ba jamono ji wër na pëng waral nag mu bind ab livre duppee ko l'œil d'une patiente livre boobee yëpp nag caane dina ko décortiquer ci biir émission bi dina wax itam ñeel wàllum jafe-jafe yi nga xamante ni patiente yi nga xamante ni ñooy euh, dund jàngoro ji di cancer du sein ñu ngi koy jànkonteel ci lopito yi ñu ngi koy jànkonteel ci seen biir famille loolu lépp loolee lépp nag daañu ko waxtaanee ci biir émission bi Thiané dañ la jox kàddu gi nga daal di nuyoo wax ñu nag lan moo la motiver ba nga bind livre bi nga xamante ni mooy l'œil d'une patiente. waaw man maa ngi tudd Thiané Ndiaye professeur philosophie laa lycée Khartane bu Gossas man nag dama bind livre ci malade du cancer yi su ma ci bindee livre nag du loo xam ni c'est gratuit parce que man mi sama bopp. Euh, cancer du sein dama ko amoon waaw di faju nag depuis juróom-benn at maa ngi nii di faju daal bu ne dem naa fa ci faju boobu euh, mu metti lool ma rencontré ci difficulté yu bare bari gis tamit ay malade yoo xam ne wallaay ñu ngi ay difficulté yu bari loolu yëpp tax daal ma ne lii il faut ma bind ci dara parce que lii nit ñi sax buñ ko soupçonné parce que man chaque fois dama koy wax dama naan sénégalaise la fii laa juddoo yaroo fi màggee fi mais mu wax ci hôpitaux yi nit ñi lii lañ fiy daj mosuma ko xam waaw loolu yëpp nag moo ma motiver bi ma tanee ma ne lii il faut ma bind ci wasaare ko pour ñëpp xam daal difficulté yi malade yi di dund waaw seen parent yi mun ci jàpp état bi mun ci jàpp ñi ci war a jàpp yëpp mun ci jàpp daal Thiané ñu gis ne ci biir livre bi dellu si waat nga bu baax a baax ci jafe-jafe yi nga xamante ni jigéen ñi nga xamante ni ñoo yore jàngoro jii di cancer du sang ñu ngi koy dund man nga dellu si waat tuuti rek ci jafe-jafe yooyee nga xamante ni yaa ngi koy ci sa jàngale constat bi daanaka ñëpp a ko def ci réew mi ñu gis ne taux mortalité ñi nga xamante ni ñoo amee cancer bi bari na lool maanaam ñi ciy génn àddina dafa bari lool lan moo ko waral est-ce que nekkul traitement bi nga xamante ni cher na lool ci ñoom. waaw ñiy dee si cancer bi moom wax dëgg yàlla bari na bari na loolu moom wax dëgg yàlla mënuñu wax leneen lu dul bari na parce que cent malades yoo jël euh, soixante-dix si dañuy dee waaw trente yi rek ñoo ci rëcc comme loolu bari mooy que jigéen ñi la maladie bi gën a di jàpp gën a di touché euh, wallaay dafa metti soo demee hôpital yow da ngay yaakaar ni xanaa jigéenu Sénégal yëpp am feebar bi léegi te li ci gën a yéemee ay xale yu ndaw ngay gis léegi ñu yor ko ay adolescente bu ba euh, ay mag nga doon gis ay quarante ans cinquante ans jëm kaw à part de moment boobu lañ la doon wax ne am na ay risque cancer yooyu léegi xale yu ndaw ay quinze ans seize ans ay adolescente ngay gis hôpital yu ñëw di faju pour euh, cancer cancer du sein mais loolu yëpp tamit war a tax tamit ñu gën ci taxaw daal gën ci kii parce que comme ni ma ko waxee rek ci livre bi euh, le cancer est devenu un véritable problème de santé publique waaw fi mu ne nii moom dëgg yàlla ci taxaw bu wér a wér Thiané nga feebaroon di jaabante daanaka l'hôpital yi nekk fii yëpp ci réew mi gi nga amoon cancer du sein tey ji nga wër péng ñu gis ne ci biir livre bi jot nga ko laal mu di wàllum accueil ci l'hôpital yi en général naka nga liggéey bi ci ci ci ci hôpital yi nekk fii ci réew mi ak ñi nga xamante ni dañoo amee jàngoro jii di cancer. nañ accueil yi moom ñëpp koy jooy. waaw fi ma jaar naa ci hôpitaux yu bëri euh, dans le cadre de mon traitement daan teg traité woo dama doon dem ci yeneen hôpitaux yi pour ay examens médicaux ay scanner fii ay hôpital Grand Yoff ay ay hôpital bu Wakam foofu laa defee sama opération ba hôpital El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack mais képp daal foo dem da ngay am pression mais daal même chose la da ngay fekk parfois accueil bu doy waar heureusement nag du ñëpp ñoo mel noonu heureusement du ñëpp ñoo mel noonu mais parfois wallaay mi dina la fa accueillir accueil boo xam ne yow dangay ngay ci yàlla parce danga da nga naan lii euh, animal sax euh, war nga koo jox benn cër asamaak euh, nit waaw nit ni yow am na ñoo xam ne man dama naan mérité wuñ sax liggéey hôpital parce que hôpital pour nga liggéey fa il faut sa dënn yaatu il faut nga am un certain nombre de qualité il faut daal nga nekk nit daal ku laabir waa loolu moom soo ko amul day day metti parce que kii ñëw tamit metti tam lay indaale su ñëwee tamit ñu ko ciy tegal yeneen ñu ci bëri dañ naan la ñun hôpital bi ñu fa demee mooy dee nañ amatuñu choix moo tax ñu dem fa mais suñu tànk ñu ngi am pexe duñu dem hôpital kon xam nga loolu dafa dafa yéeme dafa yéeme dafa doy waar. Thiané euh, nguurub Sénégal jëloon dogal ñeel wàllum gratuité chimiothérapie ci ñi nga xamante ni ñoo am cancer du sein ak cancer du col de l'utérus loolee nag entré na en vigueur benn fan ci weeru octobre ci atum deux mille dix-neuf lan nga ci xalaat ak est-ce que yaakaar nga ne ne effectif na ci ci lopito yi nekk fii ci réewum Sénégal. chimiothérapie bi nag euh, waaw war wax que bu ñu bi léegi kenn dootu ci fay waaw lu baax la parce que bu ñu nee boo demee hôpital ñu ne la lii dootoo ko fay loolu lu baax la mais nag euh, dafa am yu bëri ci laxasu parce que balaa ngay def chimio am na ay examen médicaux yooyu def di nga def mammographie di nga def ay examen sanguin ak yooyu yëpp te yooyu yëpp ngay def dina la coûter entre trois cent et cinq cent mille loolu estimation la yoo xam ni présidente lista madame ma Guenoune moo ko def kon kooku li muy wax xam na ko parce que ci loolu lay yëngu quatre cent à quatre cent mille xam nga ne loolu du sénégalais yëpp ko am rawatina tamit suñu mbokk jigéen nga xam ne ñu ci bëri euh, liggéey loolu tamit day day day yéeme day doy waar. buñ ne gratuite na te yow saa yoo demee ñu ne la dafay poser problème. parce que say mbokk dañ doon dajale dimbali la yow boo demee hôpital garab yi amul da ngay dem pharmacie ba jëndi waaye léegi bés bu état bi ne garab yi ni gratuit xam nga yow da ngay gêné wu sax nga dem fi tàllalaat la ko say mbokk parce que dinañ ne kii amul yërmande ndax boobu ba léegi ñu ngi koy jàppale état bi ne c'est gratuit mu bëgg ku ñu continuer di di eh, cancer ñëpp xam nañ ne dafa dafa toog xaar euh, médicaments yi disponible ci ci ci hôpitaux yi te plus ngay xaar plus maladie bi Euh, déjà garab gi yow soo ko jëlul boo toogee ay deux à trois semaines jëloo ko day compromettre euh, traitement bi yëpp da ngay obligé reprendre à zéro xam nga loolu yëpp tamit ça pose problème maladie sax boo leen di laaj ñoom dañ naan ñoom wax dëgg yàlla dañu gën a sonn sax dañu gën a parce que garab yoo xam ne gisuñu ko amatuñu ko leen jàppale pour ñu dem ci pharmacie jënd waaw loolu yëpp daal ay problème la la la leen mujj jural gratuité boobu day problème yu bari lu ci laxasu waaw dafa am ay préalable mooy examen médicaux yi ma lay wax am tamit leneen lu ci kii mooy euh, rupture de yi ci ci ci garab yi ci ci yi bëri na daal lu muy arrivé bëri ma trop lu muy arrivé. ñu gis ne fii ci réewum Sénégal boo ne cancer rek nit ñi dañuy jàpp ne dee nga ba noppi lan nga mën a wax par loolu. rek Sénégal moom boo nee cancer rek ñu ne dee moo ci te tamit dinañ comprendre tamit lu tax parce que situation bi ni ma ko waxee tamit ci livre bi jàllul duñu communiquer ci maladie bi da ngay gis ku feebar di faju du xam sax lu mu am du xam sax ne cancer la am xam nga loolu yëpp tamit dafa yéeme mais malade bi da nga ko war egsi xam li koy xaar déjà yow boo xamee li lay xaar rek da ngay xaw a dal te dal boobu dafa am solo ci ci ci ci faj bi dal bi dafa am solo ci faj bi waaw léegi nag euh, loolu nag mooy problème bi parce que il faut que ñuy informer maladie il faut ñuy wax ak maladie euh, ba pare nag euh, comme li ma wax léegi tamit soixante dix pour cent wu malade yi dañuy dañuy dañuy faatu am nga loolu tamit tax yokk na tamit tax ñu bëri yaakaar ne cancer moom boo ko amee dee rek moo si topp pourtant demewul noonu parce que am na ñu ciy wér am na ñu ci wér bien que bariwul na mais am na ñu ciy wér mais nag pour loolu am il faut nit ñi teel ci jog waaw moo taxoon ma naan euh, mammographie bi buñ ko rendre woon gratuite gën a pertinent parce que bu fekkee jigéen am na lum sentir mu xam ne bu demee du fay dara ñu seet ko kooku day day jóg rek dem. day jóg rek dem mais bu ko wooree ne pour mu dem il faut trois cent quatre cent mille cinq cent mille du ñëpp a ko am du dafa dafa diis dafa metti waaw ci société boo xam ni wax dëgg yàlla mooy loolu am am bi demeewul noonu. traitement bi jëm ci jàngoro ji di cancer nekkul rek ne dafa diis lool ci wàllum koom waaye it mu mel ni tamit am na ay jafe-jafe yoo xamante ni mën na ko jur ci yaramu nit ki nga xamante ni moo amee jàngoro gi mën nga ñu wax tuuti ci effet secondaire u chimiothérapie. du nag euh, metti ci chimio bi dafa diis waaye nag saa dépend tamit ci organise yi parce que am am na organisme yeneen organisme ñu tey bu ñu ñëwee ñu leen di defal garab bi fi ñu toog dañuy wàcc ba dootuñu am benn doole wallaay am na ñoo xam ne ay jaare la leen di def waaw am na ñoo xam ni karaw gi moom sa dootoo am karaw sa karaw gi yëpp lay teggi ñii seen wee yi lay yóbbu sa sa sa peau bi da gis ni muy détaché diis na daal wax dëgg yàlla diis na metti na diis na metti na waaye nag euh, muñ loo ko yàlla waaw gëm yàlla rek góorgóorlu timit parce que tamit euh, boo bàyyee ko maladie moom euh, il faut nga am benn euh, état psychologique bu solide waaw bu fekkee da nga bàyyeeku rek kii maladie bi daf lay gagné il faut yow tamit ngay dëgërlu waaw di bañ daal maladie bi gagné la di ci jël yëpp yëpp ko ci loxo yàlla parce que yàlla mooy tege feebar bu fekkoon nit mooy teg boppam feebar kon kenn du feebar nga jël yëpp delloo ko yàlla waaw daal di sa bopp nag faj. LISCA di Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer ñoom itam ñu ngi koy defal malade yi ci wàllum kom ak ci wàllum day d'ailleurs sax jot nga cee wax tuuti ci sa biir livre bi mën nga dellu si waat ci ci loolu. prise en boobu. waaw maa ngi koy wax ci livre bi mi ngi ciy def ay jéego yu mag wax dëgg yàlla parce que man nii dama fekke naa seeni rencontre parce que ñoom mardi bu mujje bu weer bu ne mardi bu mujjee bi dañ koy jël waaw euh, dajale malade yi ay ay psychologue yi ay assistante sociale waaw koo xam ni islamologue la ci l'islam lay ci islam lay yëngu euh, malade yoo xam ni ñu ngi faju ñu ngi soog ñu ngi leen di soog ne leen da ngeen am cancer ñu désespéré malade yoo xam ne ñu ngi faju yeneen malade yoo xam ni faju nañ ba wér waaw yëpp tamit day jàppale malade yi faju ak malade yi ñuy soog a déclaré positif au cancer parce que yow boo ñëwee nga jàkkaarloog nit kooku ne la ah man de dama ko amoon waaye wér loolu dalay yokk espoir boo tasee psychologue mu jàppale la euh, psychologiquement loolu dalay yokk espoir boo tasee nitu diine mu ne la ah yàlla de. ku mu teg feebar rek euh, ça veut que jege na la parce que lu ñun diine bi lu mu ñu wax mooy feebar euh, dañ la ci yàlla bu la ko tegee dalay raxasal say bàkkaar kon yooyu yëpp euh, buñ la ko waxee sax da ngay dellu si dañ lay dañuy delloo si sa xel waa sa xel gën a dal nga gën a mën a combattre nag maladie bi waaw te loolu nag wax dëgg yàlla waa Liska ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo macha allah waaw waa hôpitaux yi wara topp ci loolu parce que tamit maladie dañu soxla dañu soxla soutien psychologique boobu dañ ko soxla malheureusement euh, loolu ay quelques malades ñoo ko mën a am parce que malades yi am yëpp waa LISCA mënuñu leen jël a mettre en place structure yoo xam ne dañuy jàppale malades par rapport ak liggéey boobee nga xamante ni LISCA ñu ngi koy def di ab euh, ONG boo xamante ni non gouvernemental la mu mel ni jot na fi mu toll nii caane nguurub Sénégal dugal da bu a baax ci wàllum prise en du sang ak cancer du col de l'utérus waaw mais loolu laa doon wax rek état bi moom il faut mu impliqué wu ci bëgg gën parce que tey ay chimie ko yëpp état bi il faut mu impliqué wu ci loolu pour garab yi chaque fois maladie di ko trouver sur place ba pare tamit mu liggéey tamit ci pour maladie mën a teew de manière précoce waaw boobu foofu moom pour man daal foofu lay gën a pertinent bu fekkee képp ku sentir dara mun nga dem dépisté wu xool sa yaram te doo fay dara foofu daal gën a pertinent te mooy gën a ñu yëgee dara rek ñu daw parce que mën nga yëg dara te amoo moyen bi nooy def da ngay toog sa toog xaar yàlla waaw loolu dafa dafa dafa métti. nga wax ñu tuuti ci li nga xalaat ci octobre rose ak journée de dépistage gratuit yi nga xamante ni LISCA mi ngi koy organiser waaye it bëggoon nañu tuuti rek nga wax ñu est-ce que cancer du sein wala cancer du col de l'utérus wàllum sensibilisation bi est-ce que war nañ ko rek mën a limiter euh, ci mois d'octobre kese. octobre Rose moom wax dëgg yàlla initiative bu baax a baax la waaw initiative bu baax la parce que dina permettre femmes yu bari waaw ñu mun a profiter dépister wu def ay mammographie wax dëgg yàlla bu baax la mais man li ma ci déplorer mooy li nga xam ne tamit octobre rose c'est vrai mais année bi tamit douze mois la. Euh, te comme maladie bi moom taxawul mi ngi gën a progresser mi ngi gën a dem di gën a bëri waaw kon daal jàpp naa ne euh, communication bi dañ ko war a def régulièrement régulièrement ñuy communiquer ak malade yi waaw euh, favoriser dépistage. Thiané bëggoon nañu itam nga wax ñu ban message ngay lancer ñi nga xamante ni ñoo di jigéen ñi nga xamante ni jamono ji ñu ngi xeex ak jàngoro ji di cancer du sang wala sax cancer du col de l'utérus tey loo leen di wax yow mi nga xamante jot nga waa bi ba fi mu toll nii gagné nga ko wër nga péng lan mooy message bi ngay lancé yooyu la jigéen. moom mbokku jigéen ñi nag li ma leen di wax mooy euh, ku ci ñi nga xam ne yàlla mu leen nattoo. ku bindee livre bi euh, c'est vrai que. Euh, tim laa ci bëgg lancer la terminer livre message d'espoir pour wax maladie c'est possible possible nit wér ci cancer ak ci loxo yàlla parce que yàlla mooy teg namoon waaye yow la la wax euh, en tant que jaam def la ko mu di message bu fort boo xamante ni lancé nga ko askan wi ñu la siy jaajëfal bu baax a baax dañ lay jox kàddu gi nga daal di tàggatoo yëpp Afia FM maa ngi di gërëm yéen ñëpp macha allah ci liggéey bi ngeen di def euh, ci askan wi maa leen di gërëm yéen ñëpp di gërëm secteur di leen sant macha allah di leen wax jërëjëfati jërëjëf jërëjëf. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Thiané Ndiaye di fàttali ne professeur philosophie nga foofu la ca Gossas doonoon nga itam taskatu baax ci presse écrite bi ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci sa teewaay fii ci rajo Afia FM ak réponse yu pertinente yi nga xamante ni indi ko ñeel jàngoro ji di cancer du sang difficulté yi nga xamante ni femmes yi ñoo ngi koy jànkonteel ñuy ñaax gouvernement bu réewum Sénégal rek. mu gën a dugal loxoom ci wàllum prise en charge jigéen ñi nga xamante ni ñoo amee cancer du sein wala sax cancer du cole de l'utérus di lay jaajafal bu baax a baax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 moo leen ko may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp